dal leen ak jàmm mbokki internet yi safo di seetaan Buzz M Sénégal jaa jëf si xibaar yi li fi gën a fës bokk na si mburu mi nga xam ne nag nee nañu dinañ ko wàññi gouvernement bu président ba Bassirou Diomaye Diakhar fay mu nekk nag nouvelle boo xam ne dina neex loolu ndaw kundaa yi ak lenn si sénégalais yi ndax kat mburu mën nañ ne yokkoon na ba deux cent francs nga xam ne nag bari woon na loolu si ñi nga xam ne nag ñoo ngi bëgg di xëy Eh, di ko ndekkee ak eh, lu ne mel eh, ñu jot information buy xam lay ne nak mom buru mi dinañ ko wañi si fan yi di ñew lu yagulo dara at bi nga xam ne sax daat nañ koy siiwal moy la 11 mai bi nga xam ne nag si jëm ñoo ngi mois d'avril kon nak 11 mai bi nga xam ne nag si la jëm inshallah information yi nga xam na nag daal nañ koy jot xamle na ne nak dinañ wañi mom buru mi ko 125 francs maanaam ñaar fukki dërëm ak juróom mu nekk nag nouvelle boo xam ne dina neex lool gannaaw ba nga xamee ne nag wàññi na li nga xam ne mag moo di soble si korite ki nga xam ne si la génn kon nag ñi ngay jëmaat si mburu kon daal dund gi mën nañ ne jamono bi si lañ gën a focus nguuru président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak premier ministre am di Ousmane Sonko mooy nag jéem a wàññi dund gi ba nga xam ne nag sénégalais yi ah, dinañ mën a dund dund gu dal goo xam ne duñu mën a jooy mukk dund gu seer mu nekk lu ama am solo loo xam ne sénégalais yi bi ñu déggee boobee nouvelle am li nga xam ne nag moo di mbégte di gën a am yaakaar tamit si nguur président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak premier ministre bi di Sonko